les journalistes du projet les magistrats du projet. Alors, loolu damay bañ. waaw les Mélenchons du projet. d'accord accord léegi du ñu yegg ci les Mélenchons du projet. non wóorul. waaw d' accord wóorul. bu leen leen jox majorité la. d' accord Abdou Nguer. <laughs> Abdou Nguer fi yaayu Marème Faye Sall ma ma jàmba jaañ ko xamle. waaw ci dañ ko war a convoqué. Hmm. convocation bi jaaxal Sénégal yëpp. waaw waaw waajur bu jigéen bu Marème Faye Sall première dame de la République ancien première dame. waaw. Jambarom, ah, jàmbaroom actuellement Adama Fay, jàpp nañ ko d' information yu yore. Hmm. loolu ma jàmbale ko xamle. dañ ko téye nii. Adama Faye. waaw seen news ko xamle. dañ koo téye wala dañ koo woolu. waaw arrêté nañ ko daal lañ wax. pour le pour le problème mu terrain la am. ah nañ bayi yoon def man information comme exegul ci man exegul ci yow mais nañ yoon def mais procureur bu bess non ki bi conséquence sous information d'abord dañ wax ne Adama dañ ko ci téé mais damay ñëw rek ci convocation bi manam bi ñu wax na yaayu maram fay sal ah parce que dañ ne mom entreprise bi adam fay yoron mom da ci bok kon bu fekkee affaire témoin wala est ce que bi ñuy jaay téré bi fekki wu ko yooyu aw ma les informations waye xanaa en pareil dal non vraiment vraiment Abdou man ma la applaudir boo wax loo xam c'est c'est ça soo joxee suñu la procureur ganu procureur ñëw na ganu procureur salaamaaleykum arrêté na rakku Marème Faye waaw mais ñëw ma du yoon nag de waaw anamo nu mu tuddee sax ndoy procureur ndoy la ñëw ma du yoon de waaw waaye nag xela tey xela tey xel sama xel daal naaw na ma bon mu comprendre man daal su ma waxee dëgg ndoy mii daal waaw sama xel daal ñaaw na ci moom de waxuma la nag dara nga voilà <laughs> xam nga bëgg a jàpp lu ne mën ngeen ko koo tegal <laughs> waaye man de li ma si jaaxal nag sama xel monsieur Ndoye day fanaana daal Ndoye mi bokk na ci ñu ñëw pour jël Sénégal teg ko ci raay bi Sénégal la fekk ci raay bi Sénégal Sénégal daa yàgg a tegu ci yoon du Ndoye moo koy teg ci yoon dama ne fu fas dul xel a fay doxantu na moom lii moom salaamaaleykum gan bu indiwul continuité de la rupture la indi xaw ma de salaamaaleykum gan gu bes li yepp di xew. bu fekke njaaxoo amna nak ah man dem ci kanam rek. bu fekke njaaxoo am na yalla lim ko jappé dal yalla na tegu ci yoon yalla bu ci dara. information bi bu mu ñëwé parce que man man ko xamne man wax deug wa yoon. am ak ñom ben euh, ki bi nak parce que daanaa yendoog ñom ben journée leum ci tribunal. daanaka comme xaay dëkkandoo leen. dan daan jour àtte dama eh. dan dem yendu foo ñuy àtte may diglu des fois ñu wax lu ma convaincre des fois ñu wax loo xam ne du ma convaincre fekk audience dama ma koy fekke bari na hmm. motax tax dama yàgg yendoog ñom ha hmm. ah, jeex suma me amee soxla des fois tamit dama ci dem seen bureau sama soxla dem sama yoon waaye nag waaw gam ñu bes hmm. ñu japp rakku Marème fay waaw en tout cas ah Sénégal yi laay wax wa da ko xolal ci leen seeni bëdd fi mu ne gëmmu lañ ah. waxon Macky Sall yewul najna waaw Sénégal yewul leen najna information bi non lañ ko jëfay moy euh, mom ci boppam mom moom euh, Adama Faye dañ ko arrêté ci dossier bu fa melni affaire yoyu garda vie lañ ko def waaw waaw pour le moment loolu mo suñ news moo xamlé mais comme ni nga wax rek dañuy vérifier xibaar bu mo ñu dab. in jaaxakum fasikhun bi nabayin fatabayyanu. waaw d'accord bu ko defee information yi nañ koy vérifier di xol di ko xool saytu saytu bu baax. mais nak euh, xam nga da war dana am dana am euh, conséquence su fekkente ne yaayu Marème Faye Sall comme ni ko Madiambal Diagne waxee. Mhm. dañ ko convoqué war ko entendre. waaw ñu bind Adama fay arrêté loolu la wax donc. Euh, ci xibaar yi presse yaa ngi ci waxtaan. Mm-hmm. Hmm? li source bi ak lan muy motiver ak lan moo waral ñu war koo convoqué qu'est-ce qui se passe dinañ ci gën a gën a yaatal. waaw c'est normal moom. Hmm. yaatal leen ko rek. <laughs> waaw dañ ko gën a yaatal. maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay gërëm. Abdou Nguer bi nekkoon sama gan ci place publique nga tàggatoo ak sénégalais yi nga xam ñoo doon seetaan di la béggee. waaw maa ngi gërëm sénégalais yëpp. Hmm, di len ñaanal ne dañ waxat ne kon ñu joxaan rendez-vous ba samedi hmm allah ndem sobna yalla suñu borom te yalla nako ko waaw ndem soob yalla di wax ne lepp luñ fi wax rek mhm. ñaare pour bëgg réew mi baax la pour alerter rek ci démocratie ci démocratie alerter waaw ndax man lima len wax rek magistrat di projet waaw Mélenchon di procès lay bañ Mélenchon di procès loolu bañ comme nag ku bokkul ci projet bi duñ la fal. waaw te Mélenchon nag da cee def liggéey bu am solo ndax taxaw na fu ne ci France yuuxul leen. waaw te comme daam mbooj yuuxu doo nga taxoon ñu fal ko. waaw te Mélenchon doon na yuuxu comme moom. te Mélenchon li mu bëgg jafewut.